bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man ittabaahum bi ixsanin ila yawm ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa gannaaw nuyoo bi ñu ngi ziyaare ñëpp ci bisu ajuma bi di leen balu te leen ko baal tey ñaan sunu borom bool ñu jégal ñaan kilifa gi sunu boroom yàggal ko ci sunu kanam te wéral ko kàttanal ko ba mu yeggale liggéey bi fo kawe njortam te ñu ànd ko moom na mu gën a rafete gannaaw loolu suñu waxtaanu tey day jokk ci waxtaan wi ñu mujjoon a euh, seq mu jëmoon ci ndigal wala dénkaane loo xam ne sëriñ bi dénkoon na ko mbooleem ñu aju ci moom ak jullit yépp te mooy ñu xam ne ku jëm ci yàlla yoonu dëgg mooy yoon jaar ci dëgg nekk ci dëgg daal mooy la lay may la nga bëgg ku ci jaarul du mën a am la mu bëgg boo xam ne dëgg nag mooy ku jëm ci àll day jiital sàkku xam-xam xam li mu jàng xam-xamu tawxiid ba xam li mu war a fas na mu ko war a fase jàng fiq ba xam ay farataam nu mu ko war a jëfee jàng tasawuf ba xam num mu war a sellale ay jëfam ak pas-pasam ak ki jikkoom ak ki melokaanam mu ne te loolu yëpp na ko booleek nag tënku ci ngirum ahlu sunna wal ñu doon joxe nag ay fàttali ci ngir moom mu wax nañ ci tënk muy mazhabu ahli sunna wal jamaa muy ngir moo xam ne mooy ngir mi gën a yaatu ci lislaam nga xam ne ñi ci ñi ci tënku ñi ci nekk ñooy ñi ëpp ci mbooloom jullit mi ci àdduna si démb ba tey ak ko tàmbalee ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fii nu koy waxee ñi ëpp ci mbooloom jullit mi ci ngir moomu la nekk ay kuréel kuréelaan yu ndaw ndawaan ñoo beddiku Euh, euh, wàcc ci woowu yoon te bari na ci kuréel yoo xam ne sax amatul ci jamono kuréel boobu nag di mazhab al sunna wal jamaa dafa am ay pas-pas yoo xam ne moo leen boole ñoom ñëpp donte am nañuy wute ci seen biir ci ay njàngleen yoo xam ne jural na leen ay kuréel ci biir ak i ngir waaye teewul ñoom ñëpp bokk nañu bokk nañu tur yi mooy ñoom ñëpp ñooy waa ahlu sunna wal jamaa pas-pas yi leen boole nag bari na lool bu ñu ci bunt bi jëkk ci risalatu ibn abi zayd alxayrawaan yi tënk na ca pas-pas yooyee baa ci ëpp sëriñ bi leeral na ko ci ay ay téere euh, kon mën nañ caa jukki lu war a toll ci fukki pas-pas rek bokk ci yi ci gën a ràññiku bi ci njëkk mooy ñi bokk ci ahlu sunna jamaa yépp dañoo gëm ne yàlla dañoo war dañoo gëm ne ab jullit dafa war a gëm ci xolam dafa war a dëggal ci xolam wax ci làmmiñam ne yàlla benn buur la boo xam moom rek ay ki ñu war a jaamu amul keneen ku ñu war a jaamu ku dul moom moom rek la war a jaamu amul kenn kuñ koy booleel kuñ koy bokkaaleel amul kum bokkal nguur gi bam koy sàkk amul kum bokkal moomeel gi ginnaaw bi mu ko sàkkee ba noppi jëfandiku gi it amul kum ko bokkal kon moom dong nga bind lépp lu am moom rek a ko moom moom rekk ci ciy jëfandiku lu ko soob te du ci tàggu kenn yàlla moom itam jurul kenn kenn juru ko te amul soxna te it amul kenn ku ko niru amul kenn kuñ koy tëkkaleel kuñ naan am nawleem la loolu kon gëm ko ci làmmiñam ci xolam tudd ko ci làmmiñam ñuy tënk pas-pas yooyu yépp ci ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu bokk na ci pas-pas yi gën a ràññale yi ràññale ahlu sunna wal jamaa nga xam ñoom ñëpp ko bokk mooy ñoom ñëpp dañoo gëm ne melo yi yàlla askan ci boppam yim saxal ci boppam yonent bi saxal ko ci moom dañ ko war a saxal ci moom te saxal ga buñ ko defee desu ko dàq deesul dàqati melo ya dañ koy saxal te deesu ko deesu ko misaal deesu ko niroole deesu ko taawil taawil boo xam ne da day day génne ma day dàq maanaama kon saxal lépp yépp melo nga xam ne kon dañuy gëm ne yàlla ku am kàttan la ku amuk nammeel la ku am xam-xam la kuy dund la ku xam lépp la kuy dégg la kuy gis la kuy wax la juróom-ñaari melo yooyu yépp dañ koy saxal ci moom Euh, ya mu taqool ñu saxal ko ci moom yàlla aji àttan la aji namm la aji xam la aji dund la aji dégg la aji gis la aji wax la ba mu mat ñaar fukki melo yoo xam ne lu mu néew néew jullit bu nekk war naa xam ñaar fukki melo yooyu saxal ko ci sunu boroom dàq yamu safaanool ci moom kon saxal googu ñoom ñëpp ñoo maase ci gëm na lu ñu war a def la def gu mat sëkk ñoom ñëpp it ñoo gëm ne yàlla amul warteef ñu wax ne yàlla war naa def nangam yàlla dara waru ko moom mooy waral ci kaw jaam ay jaamam waaye kenn waral ci moom dara lu ko soob nag mu warlu ko lu ko soob mu warlu ko ci warlu ko ay jaamam waaye amul moom warteef amul warugar moom bu ñuy waral ci moom gëm ne itam lépp lu am yàlla moo bind jaam ñëpp li ñuy jëfit moo ko bind kon amul kenn mbaa lenn luy jeexital ci kenn mbaa ci lenn ku dul yàlla wajabal imaanu anna al asara li rabbina wala yakunu lil wara laysa yakunu fi jamii al alamin muassirun fi asarin ma zal yaqin bokk na ci pas-pas yi leen ràññale yi gëm ne alquranul karim waxi yàlla joo xam ne du du lu ñu bind wax la joo xam ne wu nekk bokk ca wu sax ci jëmmam ja na meloom yépp saxe ci jëmmam ja na la wax jooju dana alxuraan nekk wax yàlla ju sax ci jëmmam ja waaye ñu di ko wàcce nag di ko jàng mu dooni kàddu ñu di ko bind muy dooni araf ñu di ko dégg muy dooni maanaa cim xel waaye nag jëm dëgg-dëggi meloo nag moom mooy mooy melo mooy wax ja ja amutu ja mënta misaal wax ji ñu mënta misaal mu ko xalam ba xam dëgg-dëggam loolee kon ñu gëm ne alxuraan mooy loole loolu tam ñoom ñëpp ñoo ci maase bokk ko gëm ñoom ñëpp ñoo maase bokk gëm ne euh, lépp lu am yàlla moo ko dogal ci coobareem muy lu baax muy lu bon muy lu neex muy lu naqari lépp rek ci ab dogalam lay lay lay lay amee waaye teewul nag ginnaaw bi nga xam bi ñu nangoo lépp lu am yàllaa koy dogal teewul nit ki ci boppam am na euh, am naw sas ci li muy def maanaam am na lu ñu koy toppee ci li muy def lépp lu nit def ci coobareem akuk xamam akuk tayam ci lu baax kon am na ci pàgguteef sunu borom dana ko ca fay bu ko nangulee lépp lum def ci tayeef ci coobareem ak xamam kenn mënantuwu ko am na caw sas maanaam am na lu ko cay toppee mooy ay daan yu ko ca yu mu ca yeyoo yoo xam bu soobee sunu borom mën na koo teg bu ko jéggalut euh, kon nit ñi euh, li ñuy def am nañ ci am nañ ci euh, ak toppe maanaam am nañ am nañ ci aw sas am na lu leen cay fekk waaw donte li ñuy def yàllaa ko dogal bu dee lu baax yàllaa ko dogal bu dee ab safaan yàllaa ko dogal waaye lépp lu nit ki def ci caw coobareem ak tayam ak xamam moom loole am na ca ay luñ ko cay toppe am na lu ko cay toppee ci pay moo xam pay gu neex la bu dee jëf ju baax mbaa pay gu naqari bu def safaan kon loolu itam bokk na ci pas-pas yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ci maase dogu bokk na ci pas-pas yi leen bokk maase ñoom ñëpp dogu ci te gëm ko mooy ne mbirum xilaafa mooy kuutaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu dëkkaaleeg boroomam kuutaay googu mbirum diisoo la ak waxtaan bokkul ci bokkul ci ponki diine yi bokkul ci cosaani diine yi nga xam ne yàlla dafa wàcc ci wàcc alxuraan bi wax ci sunna ne na na demee nii waaw ah, na ko diw ko diw doom doon ginnaawam diw ginnaaw diw tudd ay nit muy loo xam ne lu ñu ràññale la waaye lu ñuy waxtaane la rek ginnaaw yonent ba juboo ci képp ko mu xam mbooloom mi mbooloom julli mi tànn nañ ko jiital ko muy seen jiit loola wér na kon ñoom ñëpp ñoo bokk maas gëm loolu kon ñoom ñëpp gëm nañu ne e, yonent bi bi mu fi bàyyi ko sallallahu alayhi wasallam waxutoon ne bu ma fi jógee na ma diw sàngam wuutu daa bàyyi noonu rek bàyyi ga noonu rek mooy tegte kon lu ñu war a waxtaane la ba juboo ba dëppoo ci xalaat gannaaw ba bañ ko defee dëppoo nañ ci ne Seydina Aboubacar moo ko njëkk a wutu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 Muhammadur Rasul ci pas-pas yi leen ràññale ak ñeneen mooy ne dañoo gëm ne mbirum xilaafa wu kotaay bi sallallahu alayhi wa ci ginnaawam du cosaan ci cosaani diine yi du ponk ci ponki diine yi waaye mbirum waxtaan la ak diisoo ak xool la fa njariñ seete loolu lañ def ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa ba gis ba jiital Seydina Abubakar tànn ko ginnaaw Seydina Omar ginnaaw Seydina Ousmane ginnaaw Seydina Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhum ajmain ñu gëm ne it ñooñu kon ñooy ñi gën ci saxaaba yi mooy alxulafa rachidun seen euh, euh, kon ñu gëm ne itam ñi gën ci xeet yépp yu jëkk ak yu mujj mooy xarnu bi bokkoon bi fekkee woon jamono yonent bi sallallahu mooy ñëpp bokkawum noonu moom jamono te gisoon ko te daje te gëm ko te sax ci gëm ko ba bàyyi ko fi mooy saxaaba yi ginnaaw ba ña ca topp ñuy a taabi'un ginnaaw ba ña ca toppaat mooy taabi'in taabi'in ñu ne ñetti téeméeri at yi ñooy ñetti téeméeri at yi gën ci jamono ñoo gën yeneen jëkk gën yeneen mujj seen ginnaaw it bu gën a jege moo gën loolu bokk na ci pas-pas yi leen <coughs> ràññale bokk na ci li ñuy ràññee it mooy ñoom ñëpp dañoo jàpp ne saxaaba yëpp a baax ñoom ñëpp a maandu ñoom ñëpp a sell kon lépp lu ñu wax dañ ko war a dëggal bu ñuy topp ab xabaar ab xadis bu ñu koy topp di seet ndax ña ko nett li ñu wér lañu wala ñu wérut ñu maandu wala déet bu ñu demee ba àgg ci saxaa koo xam ne moom saxaabi yu la ko ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne kii moom ci saxaaba yàlla bokk dañuy daal di yamale foofu gëstu ba daal di gëm la wax gëm ne kii lu mu wax dëgg la kon gëm nañ ne ñoom ñëpp a maandu ñoom ñëpp a dëggu deesul wax ci ñoom dara lu ñaaw kenn du leen ŋàññi te dañ leen a war di ñaanal fu ñu toll loolu itam bokk na ci seen i pas-pas yi leen ràññale bokk na ci pas-pas yi leen ràññale it mooy ñoom ñëpp dañoo gëm ne bàkkaar ab jullit bu xas tudd ñaari baat seede yi nekk jullit nangu lislaam def bàkkaar du tax ñu ne ko yéefar nga kon yéefar moom jëf moom du tax a doon yéefar jëf ju teg telewut ak wedd rek du doon tax a doon yéefar kon kenn du doon kenn du duñu wax kenn ko bi yéefar nga ngir jëf ju ngir bàkkaar bu rëy bu mu def du tax ñu wax ne kenn yéefar la bàkkaar bu nit def it du tax ñu dogu ci ne kii day dem sawara ba faw day dëkk sawara ba faw dañoo gëm ne képp ku boo def bàkkaar bu mag bu soobee sunu borom mën na koo jéggal ci bu ko tuubee ak bu ko tuubut yépp waaye bu ko jéggalut it ba yóbbu ko ca kërug safaan ba ndegam ku gëm yàlla rek lu mu yàgg-yàgg dana masa génn sawara dem aljanna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana mas a ramm mbooleem waa sawara ñi ci ci nekk ay jullit ñëpp leen mas a ñoom ñëpp ñu génn sawara ñoom ñëpp ku ci koo xam ne lu lu toll ni fépp baamat ci ngëm nekk na ci xolam dana génn sawara dem tàbbi aljana ci mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu bokk na ci li leen ràññale bokk na ci pas-pas yi leen ràññale itam mooy ne euh, euh, dañoo war am kilifa dañoo war a topp kilifa yi maanaam jullit yi dañoo war di am njiit dañoo war di am ay njiit yu leen di jiite ñu ñu topp ndigal ñu topp kilifa googee di topp di wommat ci ginnaawam di topp ay ndigalam mooy walaatu al umur mooy aimatul muslimin war nañoo topp njiiti julit ñi njiiti jullit ñi nag mooy ñi leen jiite ci seen wàllu diine nga xam ne ci lañu nit ñee dellu ci wàllu diine ak ñi ñuy dellu ci seen kilifteefu àdduna ñi leen yilis ci wàllu àdduna ñoom ñëpp ñu ñu war a topp lañu ci lu neex yàlla lépp luñ digle te yàlla terewu ko dañ leen caa war a topp lu ñu tere te yàlla diglewu ko dañ leen ko dañ ko war a bàyyi kon dañoo gëm ne jullit dañoo war di am ay kilifa ci jamono ju nekk te ñëpp dañoo war di topp kilifa yi ca yàlla waaw képp koo xam ne nag moom digle na yàlla yàllay tere baa mu tere lu yàllay digle kenn du ko topp ndax laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq loolu kon bokk na ci pas-pas yi leen ràññale bokk na ci pas-pas yi leen ràññale mooy dañoo jàpp dañoo jàpp ne gëm lu ñuy fas ci xol la di ko wax ci làmmiñ di ko jëfe ci ay cër xam ne nit ku ne gëm na ci xolam te waxu ko ci làmmiñam ñu dégg ko dee su ko mën a jàppe aji gëm ku gëm kuy jëf ci ay cëram te la muy gëf nekku ci xolam duñ ko jàppe aji gëm ci xolam tey jëf ci cëram euh, euh, te tudd ko ci tudd ci làmmiñ te jëful ci cëram itam de su ko jàppee aji gëm kon aji gëm daal gëm daal ci xol lay nekk ñu wax ko ci làmmiñ di ko jëfee ci cër maanaam lépp luñ digal way gëm ñi aji gëm ji war na koo jëf kem kattanam luñ ko tere war na koo bàyyi wala boog mu gëm ne lu mu war def la boog lu mu war a bàyyi la waaw bu ko defut na ko gëm moom euh, gëm googu nag ñu gëm ne jàpp ne day yokku bu nit ki gënee farlu ci jaamu yàlla ak jëf ju baax gëm ga day yokku waaye bu sàgganee ci ay jëf yu baax ak gëmam day wàññiku kon gëm day yokk bu jëf yu baax yi aji gëm ji yokkoo day wàññi ko itam bu jëf yu baax yi aji gëm ji wàññi koo loolu it bokk na ci pas-pas yi nga xam ne moo leen ràññale bokk na ci pas-pas itam jàpp nañ ne topp topp kiñ ko war a def mooy maasu mooy ku yàlla aar ku yàlla aar nga xam na ko yàlla bindee yàlla da ko bind mu am kàttanu topp te amul kàttanu mooy ku amul kàttanu mooy nga xam mënta mooy ku bind bindin woo xam ne mënta mooy kooka lañ war a topp topp mutlaq ak nag képp ku topp ku noonu loolu nag dañuy wax ne yonent yi rek la ko yàlla def la ko yàlla waral ci ñoom ñoom la ko yàlla bindee mu nekk bind boo xam ne lu war la lu ñu war a gëm ne lii lu am la am na ñoo war a gëm ne ab yonent du mooy yàlla du def lu xaraam du def lu ñu sib xel mënu koo nangu xel mënut a xalaat loolu ku dul ab nag yàlla mën na ko bind mel noonu mën na ko bind mel noonu mën naa bañ mel noonu itam moo tax ñu ne kon googu moom lu war la ci yonent maanaam lu ñu war a lu xel mënta dàq la ci yonent waaye nag mën naa dàqu ci xel ci kudul dul ab yonent doonte mën naa saxit nag loolu sëriñ bi wax ne washtaraka fi ismati rahmani euh, ay si yakunu eh, kama bihi nas wal asani lakin ma ismatul anbiyaay waajibatun bi aksil awliyaay kon loolu itam bokk na ci ñu saxal ne kon kaaraange googu ci yonent yi rek la nekk loo xam ne xel mënu koo dàq ci ñoom ku dul moom nag mën na caa am waaye xelit bu dàqoo itam xel du ko du ko du ko du ko du ko jombal mën a nekk la loolu bokk na ci pas-pas leen ràññale bokk na ci pas-pas yi itam dañuy gëm ne ab jullit dafa war a tënku ci sunna dafa war topp sunna si bi sallallahu alayhi wa ci pas aki jëfam ak i waxam sunna nag buñ ko waxee mooy safaanub bidan liñ ci jub mooy safaanu bidan bidan mooy lu amul cosaan ci diine loo xam ne nit a ko sos nit koo xam yàlla yónniwu ko mbindeef ku yàlla yónni wut muy nitu aada nitu kese rek ku yàlla yónni wut mu jekki-jekki sos dara ci diine ci xalaatu boppam ba noppi nag boole ko ci diine gëm ne lii ci diine la bokk loolu moo ñu tudde bidan loolu dañoo gëm ne nit da ko war a bàyyi war ko ko war a dañ ko war a moytu lépp lu yàlla diglewut yonent bi saasum diglewu ko kuy digle ci seen diglewu waru arisu ko topp dañoo war a bàyyee topp bi daa tey topp sunna sunna kon bu ñu ko waxee mooy ndigal rek ndigal mooy lu yàlla digle na nañ ko def bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle nañ ko def loolu mooy sunna ñaar ba it ba ko diglee nañ ko def it nañ ko defee na ko nañ ko diglee nañ ko defee nañ ko diglee ku def luñ ko digalut baa mu def luñ ko digal te defewu ko nañ ko ko digale loolu moo tudd bidaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag nee na képp ku jëf jëf joo xam ne dëppoowut ak suñu ndigal yàlla du ko nangu man amila amalan laysa alayhi amruna war a raddun kon daal lii ay tënk la yoo xam ne bokk na ci yi gën a ràññiku ci pas-pas yi ahlu sunna wal mbooloo mi nga xam ne ci la sëriñ bi digal mbooleem ñu ko yaakaar ak jullit yépp ci ñu tënku ci ndax mooy tax a mucc yàlla yàlla defal dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام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 أما بعد فيا أيها الناس إن العاقل من اشتغل بمراد الله عن مراده واعتكف دائما على طاعة مولاه والتزم الوصية التي وصى بها جميع عباده فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واتخذوا التقوى مسلكا ومتجرا وعملا ليوم نجد فيه تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مهضرا فتقوى الله متجر الفائزين وغاية من المقربين ولقد خاب من شغلته عن ذلك دنياه وآثر على طاعة ربه طاعة نفسه وهواه فعلينا أن نكف نفوسنا بأيدي بال... التي بأي... بأيدي الشيطان والهوى أسيرة وأن نتوب إلى الله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 الحمد لله الذي أوضح معالم الدين ومنح هداية أصفيائه المتقين وأشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجد بركتها يوم يجمع الأولين والآخرين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 الله asalaamaaleykum.